نيودريغوغيت لسندر مصحل في القرآن خلق وخلق الإنسان ضعيفا موحني نتبين كو جند مدرق نيودريغ وعي نيودريغوغيت جامل غير نسان تيرير أمبل الجمارم نمو أمبل لي لي لي أم لي أم تكنم نحن نقول سندر مصحل في القرآن آه، سيكون بيجيو مينت بيجيو تكنم كيف نجاح الخمس comme minute bii ñëw kanam képp li loolu képp bokk na ci ak néew doole gis nga doon di wax loolu tax mbir di dox ci ñaari jéego muy ragal ak yaakaar jamono bu ne la muy bëgg mu ngi yaakaar ni war na ko mën a am la muy ragal it mu ngi waaye ci ragal ak yaakaar rek ñaar ci lay dox ngir lii ñëw xamut lu mu nekk ci ñàkk xam loolu nag wax yaakaar li mu bëgg lim jàpp ni aw yiw la mu koy séntu lam jàpp ni musiba la ma waaye de mu koy moytu di ko ragal waaye nag taxut sax doomu aadama xam li muy ragal mbaa mu di ko yaakaar xamul ba xam li muy ragal mën naa moo gën ci moom la muy yaakaar it mën naa am bénn ci moom ndax xataa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum xataa wa xataa an takrahu shay'an wa sharrun lakum ثم انه توفر حتى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نتمنى بين درا وعيسى كل بارك او يوم كون ام في السماء ده موي تخ موي بوجي درا لو خامي غن سي موم يساي موي بان درا لو خامي لامي بان خيولم لا ديمبالم لا توفيقم لا waaye nit ki bu demoon ba li muy bëgg ka bañ mu wóor ko ni lii muy bëgg mooy di gën ba amu ci ay natt bi leen ragal it mu wóor lu bon la ba amu ci ay natt bi ndax dana tax nit ki am kàttanu li mu bëgg mu mën ko xëccal boppam wala lam bañ mu mën ko jañal boppam ba tey ni mu umpalee ba tey bu demoon ba am lu leer ci nit lii mooy diggante ci moom it mënu ko amul kàttanu xëccal ko boppam bu demoon ba am lu ko leer ci nit lii gën ci moom it amul kàttanu mën koo jañal boppam loolu kon ba tey eh, noonu la suñu borom bindee doomu aadama kon nit bi mu xasee nekk nit rek suñu doon daf ko def mu doon ku umpule doon ku tële doon ku ñàkk bi mu ne nit rek umpule na tële na ñàkk na amutal loolu tax kon dafa mel ni nit biñ ko wàccee ci adduna buñ ci ëpp suñu doon daf ko sakk pour mu mën a jàll mu fekkat ci benn bunt képp muy buntu wéeru ci boroom kàttan goo xam ne dara tëwu wéeru ci boroom xam-xam boo xam ne umpliwu dara te kooka kenn rek la mu yàlla yi tey lu ma ko xam ne seen doomu aadama buntam yëpp dañ ko sàkk ba mu des buntu boobu saa bu jaarul ci buntu boobu rek kalewu yomb la ci loolu ndax première fois dafa umpale ñaareel ba dafa lot ñetteel ba dafa ñàkk kii umpale lot ñàkk na benn bunt képp moo fi nekk bu mën a jaar ngir jàll muy wéeru ci yi xam aji am kàttan yi am aji man ji nga xam dara tawu moo tax nit lii sun borom di dogal ci kanam xamu ci dara waaye nag dogal boobu yi suñu borom war a dogal ci moom ci ay mbiram am na ay màndarga yu ko suñu borom defal mu war ca xamee ni nangam war naa mën a am màndarga yi mooy sa bu bopp nit ki suñu borom daf ko bindee lépp lu mu te këfu ci réew ci bu ci caaxaan la suñu borom dogu ci fekk kon xamoo dogal bi lan la waaye nag màndargam ni dogal bi nangam la war a mën a doon yow yaa koy kenn yow yaay bëgg te dogu boo bëggee si loolu nag lu ci ëpp loolu nga bëgg si loolu suba la si loolu moo tax waaye nag ñaan it nag mooy wasiila ñaan yàlla mooy yoon bi muy jaar pour lim bëgg mu pour dogal boobu muy taxaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa daf daan lal ay plan ba mu leer mu doog a tàll ay loxoom yàlla di ko ñaan waaye lu man doon nag dañ ci soxla effort doomu aadama foog nga def effort